feu Ababacar euh, sàll euh, question bu mujj bi nag fekkee la ci boole muy liy xew ci biir APR euh, gis naa coow loo xam ne mi ngi dox ci diggante Moustapha Diakhaté ak partem ba ñu dax ko ci bopp parti ban gis-gis nga si am ci loolu. moom xuloo ak bëj bëjoo fu mu ti am man de gënaluma ci mu anam bu mu mën a doona mënuma mm-hmm. cee wax comme na ma la waxoon ci tàmbali ba ci kaabale rek laa mm-hmm. ciy wax mais li may mën a wax man. Mm-hmm. jëm ci kaa moo di day Moustapha Diakhaté ci li ma xam a distance ci moom sans àtte ko sans dugg ci conflit bi xam naa ni ku am fit la ku am fulla la ku ñeme li muy wax la te koo xamee ne li muy wax aussi li ci ëpp lu tegu ci yoon la et j'estime que ni aussi ci réew mi ñu nekk nii parti politique yi ak société bi dañoo war a commencer jàng mhm. ci situation yi ñuy nekk nii ñu war a mën a mayante respiration respiration bu ñu mën a permettre expression yi am. te li nga xam ne comportement doon nga ko doon nga ko yow apprécier ci sa parti. ah waaw mënuma ci dara non non dama ni comportement en tant que militant. non mënuma ci dara doon nga ko apprécier yow. bu fekkoonte ni sa biir parti non xam nga xam nga gis nga ku ne ku mu doon sa sago ku nekk. waaw sa parti doo am benn coow. ku mu doon sa sago ku nekk ci jàmm ak salaam ngay nekk. waaye bu problème yooyu amee ci sama parti munuma ci dara ndax système mu Sénégal fii ñu tollu tey jii ak évolution doomu aadama yi moo xajoowul nga yeewu nit ñi ci benn kànnaar ak ci benn pax ni leen du ngeen ŋàng du ngeen wax. te loolu aussi. xëy na li ko indi sax boo ko seetee ba si biir mooy coowal troisième mandat ak jàppal indil fii ak amal fii et cetera te processus d'évolution réew mi moo toll foo xamee ni <laughs> évidemment bu ñu demee ba nga xamee léegi li wér bu wóor mooy mandat yee jeex na fokk ku nekk am noo waxee ak noo taxawee. d'accord euh, jërëjëf honorable député Cheikh Bamba Dièye ma bàyyi la ci ay minutes euh, bu fekkee am nga message booy booy def. message bi may def nag jumbu ñëwoon mayoon nga ma tuuti sax ma wax ci mais dama ciy dolliwaat ndax dëgg-dëgg xaw naa nekkuma sax ci liberté pour mën a ñëw mais yow ak ni nga ma woowee. Mhm. Euh, fokk ma ñëw teew ndax xam naa ni plateau bi plateau bu sénégalais yi di déglu. Mhm. man dama bëgg rek sénégalais bu nekk boo may déglu. nga xool doomu Sénégal. Mhm. buy wax ci benn situation boo xam ne dafa xew ci Sénégal moom laa gën a miin ndax fa lañ tegee sama laaxu ngénte muy Guet Ndar ak Langue de Barbarie 2003 mbënd moom fi amoon muy inondation bi moo taxoon ñu ubbi woon benn brèche bi ñu koy ubbi cinquante centimètres la woon bi mu amee fan mu nga dépassé presque cinquante mètres boo demee ba mu amee ñetti weer yegg na presque si huit cent mètres. mu noonu opportunité pour ñuy dem géej dootuñu jaaree jaareeti di traverser vague yi jaar ci biir brèche bi mais brèche boobu ba ñu ko ubbee ba léegi nee naa leen ñeen fukki doomu aadama ak fukk ak ak juróom fukk seen bakkan rot na ci te ay waxambaane rek la. bu dee 450 mooy ñeenti téeméer ak. waaw ñeent mooy ñeenti ak juróom fukk ñeenti téeméer ak juróom fukk ñeenti téeméer ak fukki bakkan. Mhm. des na ci. Mhm. kon li ñuy wax ñun moo di gouvernement wu Sénégal dafa war a fitam takk fulaam te xam ni li ay di jàmbat ci réew mi amul fi benn priorité bu ëpp doole priorité defar bël bi ak defar booru géeju ndar ndax cent mille personnes ñoo fa yeewu ay gone nga fa ay maga nga fa te bu géej gi doxee jëm ci seen kaw pompier du ko gaawee ba musal leen keneen du ko gaawee li ñuy laaj du ay milliers de milliards boo jëloon li ñu dugal ci teer bi da nga koy diviser par presque quatre pour dool tax nga jot limba cent cinquante milliards ci budget national cent cinquante milliards ci leb ñu régler bëlu ndar stabiliser ko defar booru géej gi def fa digg de protection ak route boo xamee ne dafa mën a jaar ba pare képp koo xamee ne sa kër yëkkati nañ ko ñu wutal la kër gu baax boo mën a dem dëkk fa lii laa ne su fekkente ni dëgg-dëgg li ñuy wax am na maanaa ci réew mi national tax na ñoo jóg priorité ngi nii te man ki sama xayma en tant que en tant qu'acteur politique gisuma tragédie boo xamee ne ëpp na lii ñàkk koo def nag mooy ñàkk fulaal nit ñi mooy ñàkk leen respecte mooy ñàkk leen ormal mooy ñàkk leen boole ci lu ñu bokk te wolof nee na génn fas moom bu ko sàngalulee awraam dàqalu ko weñ dagg sànni moo ko ci gën mhm. képp koo xamee ni sénégalais nga daal ak foo mën a nekk nga xam ne Kafountine wala Ziguinchor wala Tamba wala maatam wala podoor xamal ni daal jooy nañu suñu jooy ñun te ñun alal ji ñu bokk ñun ak yéen la ñuy ñaan ngeen jàppale ñu ci ñu àndandoo wax ak gouvernement bi seen xel dellu si ñu xam ne priorité bi du BRT du TER du élargissement sax VDN bi mais vraie priorité bi ñu am ci réew mi mooy xettali doomu ndar yi nga xamee ni seen bakkan a ngi ci xoot jërëjëf honorable Cheikh Bamba Dièye mbokk yi mu nekkoon suñu invité tey ci Faram fàcce